cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba mi ngi wax ci téeréem bi ñuy wax masalikul jinaan nee na ña dawlu soo leen ne pëkk pëkk ca bàmmeel ya ne leen lu ngeen gën a bëgg dañ naan dellu si waat àdduna donte asca la asca mooy donte 30 minutes la olof day wax naan xaar ma dans 30 minutes ndax 30 minutes day lu néew kon nag sëriñ bi ne ginnaaw ki ci bàmmeel boo ko laajee danaan trent minutes yi àdduna la bëgg ba bu demaatee foofee la ko rawan lépp mu mën koo dab dabaatal kon yow mi fi desee lu mu néew néew waxtu dese fi lu mu néew néew semaine dese fi lu mu néew néew ay at gaawal sa at yooyu ak sa semaine bi ak sa waxtu wi nga def ko ci lu neex yàlla ci ngeen dégg sëriñ bi naan wa argabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat li yacmaluu saalihatan tanfacahum in qafaluu faxtani man baaqiya cumrin qad madaa bi xayri taacatin wa lil xayrin hadaa fa law lanaa karratan buñ mayoon trent minutes ñu def fa akoona min al muxsiniina kon daañu rafetal kon ñi ci bàmmeel nee na bu ñu leen mayoon 30 minutes ñoom daañu rafetal kon nag ana ñi nga xam ne duggaguñu bàmmeel mën a rafetal xam fa ñuy rafetale jekku rafetal ñoom buñ xaaree kenn ca rafetal duñ boroomi xel rafetal googu nag ginnaaw àdduna yamal xiyaam suñ borom waxul ne sa bis bépp laay xisaab nii wala sa at mépp laay isaab bu nooyi gi xëccoo jëm biir dañ koy isaab bu dellu si waatee di ak nooyi gu génn bakkan bi dañ koy isaab isaab moomu nag da ngay fexe ba sa waxtu yépp nga góor góorlu ca buñ xoolee bi ngay noyyi mu jëm biir muy aw yiw nga noyyi mu jëm bitti muy aw yiw su boobaa kooku mooy ki nga xam ne dana amuk texe foofale li ma wax ne ay temps la nag ci laa bëgg a dikk dafa am temps boo xam ne danga koo jeexal ci sero ak temps boo xam ne da koo jeexal ci topp yàlla ak temps boo xam ne da koo jeexal ci mooy yàlla ñetti temps yooyu benn bokk ceeg moroomam temps bi nga jeexal ci sero mooy da nga ne woon nong rek fas ci woo xañ ceeg moroom ja ba temps ba jàll su ëllëg tey yomal xiyaam lottaange la xam nga ngeen luy lottaange lottaange nga dem ci ab arrêt xiin wii di bëgg a sàqi te ab oto romb la mën naa am oto dana la romb mën naa am du la romb kooku yaa ngi ci lottaange mooy ki nga xam ne daa jël dundam gii defu ci lu naqar yàlla waaye defu ci lu neex yàlla kooku mu ngi ci benn arrêt boo xam ne amaana horaire ba dana fajaar jaar amaana du fa jaar ki nga xam ne nag da koo jël def ko ci ak mooy yàlla moom fu mu ne kooku dañ koo jëlee ca arrêt ba. tënk ay tànkam yóbbu ko conk tëj ko 100 mètres ku ne xam ne ne kon kooku bokk tëkki doon xaar ci arrêt ba kon ki ci def ak mooy yàlla mooy ki nga xam ne moom jëlee nañ ko ca arrêt ba moom tënk ko ba mu dëgër ñu yóbbu ko 100 mètres atte ko ngirug dundam mooy ki nga xam ne daal mooy yàlla ci temps ki ci topp yàlla mooy kan ki ci topp yàlla mooy koo xam ne dañ koo jëlee bitim réew mu jël première classe ci avion mu wàcc escort ñu escorté ko yóbbu ko hôtel léppam di ko fa fekk. ba président réservoir ko ci ci ci pale bi décoré ko kooku mooy ki nga xam ne jël na temps def ci li neex yàlla bokk yi ñetti temps yooyu kenn ku nekk na ci def xalaat ki jël temps defu ci dara lu neex yàlla mais defu ci dara lu naqar yàlla mi ngi ci arrêt amaana mu am du ko am ki jël ab temps def ci lu naqar yàlla nag kooka ma nga biir conk ñu tëj ko di ko bundu xataal ki jël ab temps def ci li neex yàlla nag kooku la buur bi wooy ba mu ñëw mu décoré ko dalal ko léppam di lu neex kon nag temps yooyu nag. baatab al waqt te mooy temps lu ama am solo la ci nit ku la gañe fii rek moo lay gañe fële ci àllaaxira ku xëyoon tey korosé la bara ne yàllaa may jox ma lekk moo may jox ma naan sabab lu woo ko amul kenn ku la ko sabab lu le ku nekk xam na ne sag lekk ak sag naan yàlla rek a ca des waaye ku nekk fii nag xëy dem tool wala nga xëy dem ca marché ba walla nga xëy def pexe yi nga xam ne mën naa tax yow sa waa kër dund kon su boobaa bu añ jotee mbaa da nga am yaakaar ci da nga am añ danga am reer waaye ki jël sa temps nag bàyyi fa lépp di jël fi jàmbur añ ci derub jàmbur reer ci derub jàmbur kooku mooy ki nga xam ne bu ëllëgatee bu defee na dana lekk ndax na boppam temps boobu nag buñ ko waxee ci biir programme amaan na beneen temps buy ñëwaat boo xam ne bu anniversaire la temps bii ñëwaat mooy ban daaw ba ñu ngi lekk di naan buñ fi wooree kooru ngàtt nga lay tudd goo xam ne boo ci dogee sax doo ko fay bu la neexee it doo woor loolu mooy temps boo xam ne bàyyi nañ ko muy temps boobu sa temps la ñi ngi dëggmal benn temps boo xam ne nag ndigalal yàlla moo jóge ci kaw asamaaw wàcc ci suuf jaar ci poste boo xam ne poste boobu wax dëgg rek ko fa bàyyi ak def dëgg te mooy poste boo xam ne jibril mooy courrier ba fukki weer ak benn bu la ci suñu borom daganalee lekk ak naan ci guddi ak bëccëg ba yàgg ma ne la fukkeel ba ak ñaar ba nag kaay nga bañ koo lekk ba bëccëg te di ko lekk guddi kon kooku ma yërmande mënu koo weesu te mooy ramadan mooy weeru koor duñ bàyyi ba gan gi ñëw ñu ne nuñ koy ganalee loolu day sonal nit gan balaa muy ñëw day fekk sa waajtaay jekk ba bu dikkee bu dee am xaram moo ca war xar maa nga yeewe bu dee aw nag moo ca war nag waa nga yeewee bu fekkee galaas ca war mbaa boisson lépp ngay taaje loolu mooy tax nga mënal ganal dara tey nag dañoo bëgg a dem benn nopp fa benn tuuti rek luñ tënk ci weeru koor wi nga xam ne mi ngi ñëw tey sunu gan sunu sëriñ nag di cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba ko daan teeroo yaa xayra fin la ko tuddee woon baatam yaa xayra dayfin rek yow ngën ji gan ngën ji gan mooy gan goo xam ne buy dikk lim am ci lu baax lépp dana la ko indil mooy xayra te buy dem loo amoon ci lu bon lépp dana la ko yóbbaaleel kooku mooy xayra baatam xayra loolu lay tekki koo xam ne bu dikkee lim am ci yiw yu lépp dana la ko sotti te moom buy dem yow loo am ci aw ay lépp dana ko yóbbaale kooku mooy xayra dayfin xayra dayfin moom na bu dee dikk di weeru koor dañ koo war a séentu ci ay anam yu bari waajal ko ci ruux waajal ko ci côté social nan lañuy ñu war dundee noonu suñ diggante ci biir Ramadan waaye waajal ko ci suñ diggante ak sunu borom subhanahu wa li ci war benn waajal gi mooy bi jiitu koor buy dikk baatub ramadaana ci luxal arabiya mu ngi tekki ab gël gël mooy soo taalee ab taal ba xal ya jàpp nga dégaase xal ya ca kaw yaa gën a xam ne ay ferñeent nga ci biir yu ànd akub dóom loolu mooy baatub ramadaan ferñeent yooyu ànd akub dóom tey boo ci dugaloon ab kawar kawar ci sa bopp da koy fekk mu mu lakk ko ci benn système mu lakkeen woo xam ne du saxar te day sese rek éliminé wu baatu ramadaan loolu lay tekki bu dikkee bàkkaar yi mu fekk ci biir doomu aadama bi da koy ruyal lakk ko noonu sawara wi di lakke kawar bi mu ko defee bay dem bàyyeeg nit ki nag ak sedd wecc baatu ramadaana loolu lay tekki am maa nga dem ci côté histoire ramadaana dañu wax ne weer yi dafay niroo ak temps bi parce que rabiul awal ak rabiul thani temps sedd la jumaadal ula jumaada taani day fekk déeg yi ngiis rajab day fekk nit ñi bàyyi seen guerre bi ñu doon guerre dugalaat seen jës yi ci seen mbari kii moo tax ñu doon ko rajaba chaabana mooy dañuy ñàkk ndox bay rootaane ramadana day tàng jër ci temps bi nga xam ne temps bi ci boppam mooy dem température 45 degré bu fekkee ci zahir bi la noon nga koy tekkee waaye bu dee ci baatina nag ramadan day lakk ay bakkaar ni nga xamee ne sawara woowu ñu gël day lakk kawar bi kon moo tax man la gan la goo xam ne buy dikk day indi ay yiwam te buy dem day yóbbaale saw ay koor njëkku ñu ñu ko wax nun rek yàlla waxoon na ko ñëpp avant noonu ci wàllu mantiq nit ki buñ ko santee loo xam ne daan nañ ko sant ay moroomam ay moroomam daan ca def la ñu man ba moom mu des ca ndax buñ ko ko santee wuru caa def la mu man ah kay moo tax yàlla suñu borom bi mu dikkee di ñu suwoorloo daf noo fàttali ñu njëkk ñene ne ñu woor yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum yéen ñi yàlla farataal naa ci yéen koor ni ma ko farataale ci seen moroom yi leen jiitu woon sa moroom jaar fi def lu rafet sa moroom jaar fi wax lu rafet sa moroom jaar fi nekkin wu rafet yaakaar naa boo dikkee tey as gor te dib jullit te dib taalibe war ngaa góorgóorlu noonu ko sa morom bi doon defee ni nga ko war a defee ne moom wala sax nga gën le ko moo tax mu ne kutiba aleykum siyaamu farataal dañ ci yéen kutiba lu tax mu ne kutiba te waxul kataballaahu aleykum siyaam bépp mbir mu itteel suñu borom day bëgg bu la ko laajee nga ne ku ko def sam xel tontu ne yàllaa ko def moo tax mu binaa ko lil majhul bu neen kataballaahu aleykum siyaama doo ko laaj da nga yàllaa ko def waaye bu ne kutiba ñu ne waa ku ko def yàlla ne ka daan bind koor ca ñeneen ña moo ko farataal ci yow kama kutiba ala alladina min qablikum seeni moroom daanañ ko def rek lay tekki seeni moroom daanañu woor ni ngeen di woore donte nag am na aw woor yin wu wuute yonte yàlla daawud weer wu ñetti fan keneen ak nam daan woore waaye nun sunu koor di benn weer boo xam ne moo tudd ramadaana tàmbali ci matlax bi ba ca taafeer ju mujj ca koor nañ xam farata yi ak sunna yi sëriñ bi moo wax ne képp koo xam ne yaa ngi jëf te xàmmee woo farata ak sunna mu dëppoo ci ak imaamul Awfi la ngay def suñu borom du ko nangu donte nag masala bi question bi am na ay tanaasuwaat ay compétition yu bari waaye Sëñ Tuubaa mujj na ànd ak ki wax ne booy jëf te xamoo li ngay jëf de su ko nangu moo xam da ngay woor moo xam da ngay julli moo xam da ngay jeexaat moo xam na ngay togg ay ndab sax di ko joxe sëriñ bi nee na na nga xam ne ci yàlla santaane koor ay farataam néew lool ñaar la siyaamuna lahu faridataani bila siyaadatin wala nuqsaani niyatunaa wa kafunaa am muftiraat li wajhi baaxin mut'amin bi tayibaat nañ xam ne koor ñaari farata la am mbokk yi fas na maa yéenee woor weer wi kooku farata la fas na maa yéenee woor weer wi farata la ak lan te boo wooree nga téye sa làmmiñ wi téye sa loxo bi ba doo lekk lu lay doglo loolu rek mooy farata bi yéene ak fegu yéene ak fegu mooy koor na ko ñëpp maa si xam bis boo nee fas na maa yéene woor weer wi benn farata la nga fas yéene fegu ba doo def lu lay dogloo ñaari farata la kon kuy bëgg a woor na xam ne weeru koor ñaari farata rek la am yéene jooju nag boo ko tàmbalee ci njëlbeen gi ba ba ñuy woor yi te doggoo ko jërul répété bu la neexee doonaan bis seen nga dama fas yéene déedéet en tant que nga ci yéene te amoo benn ngant ngant mooy da nga tukki tukki bu jar wàññi kon boo dikkee da ngay yeesalaat yéene jigéen regalam dafay dog day yeesalaat yéene ku tawat ki dafay xiqi day yeesalaat yéene ku dul ñi nag sa benn yéene bi nga déparé mën naa dem ba fin loolu mat naa bàyyi xel moo tax boroom xam-xam yi dama am benn loxusu benn benn léeb benn cax biñ ne tey la koor waa ji ne fas na maa yéenee woor tëdd nelaw koor gépp bañ ne weer waa nga nale tey la kori kooku am na koor lu naqaree dégg la waaye li nga ciy déggee mooy ginnaaw nee na fas na maa yéenee woor am na benn farat bi ki desin mooy diggante bi daf koo nelaw ba jeex leneen lañ koy topp waaye kenn du ko topp ñàkk woor ndax lékku fi naanu fi kon ndekete fegu la ak pas koor fegu la ak fas fegu ba doo lekk doo naan doo def luy niroog lekk ak naan luy dog koor ak fas ko nag fas yéenee woor weer wépp sunna ya di ñett teel a dog bañ a xaar ba julli ba noppi donte ab tàndarma ngay doge na nga dog sa koor door a dem julli ji benn teel a dog yéex a xëdd bañ rek naan damaa tayee jóg une heure du nga lekk si li ngay lekk lépp tëdd yonent bi saasalam neen loolu amul barke ak lan bu la nit bëggee dugal ci ay caaxaan nga ne ko dama woor mooy wax ji ci gën a gàtt ñett la am ci ay sunna bu dog jotee rek dogal bul jàllale yonent bi nee na bu ñi ñuy dem ba ay ginnaaw gee yooyu mooy koor yi ñeneen yi mais yéen du seen koor bi ki des mooy bu fajar jotee na nga jóg mos dara tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka dee leen xëdd ndax xëdd barkee ngi ci donte ñetti tàndarma la donte ñetti góoxi ndox la nga def ko muy sunna si bi salaa salaam dañ la ciy fay ñaar bi ci des nag mooy bu nit dikkee bëgg laa dugal ci caaxaan nga xamal ko ne ko dama nekk ci yëfi buur mu yàlla ma sant may def aw ma sa jot ñett yooyu mooy sunna ya léegi nag ñu ñëw nag ci fëlsafab koor ndax nit bu dara amee naan lu tax lii am fi ne ajjuma ji buñ naajee lu tax mu am dañoo bëgg ñu dajee di gisante mën a yëgante ba boo amoon lay joxe sax nga am nga xam ki nga koy jox benn ngoog fël fëlsafa la ci ajjuma mais fëlsafab koor nag mooy lan ndekete yoo am na ñoo xam ne waxuma la félicité mais ndaa rek amuñu ko amuñu luñ jënde galaas seen seenub añ buñ añee yàlla buñ reeree ngoon amaana yàlla bëgg a mosal borom alal ji ne ko duut lu metti ne ko mosal mu mos ñu ne ko nag gis nga lii nga mos nii ci wenn weer am na ñu ko dëkke lii nga mos ci wenn weer am na ñu ko dëkke xiif bii ak mar wii nga xam ne yaa ngi koy yendoo tey mu ne xaa ñu ne ko ubbil sa nopp yi am na ñoo xam ne ci lañ dëkk su ko defee nga am nga sentir nga yëg ne ndekete yoote li nga yor yow di ko tuuri muy forox nga di ko sànni ji muy xëbbu am na ñoo ko war a bokkal bokk yi suñ boroom farataalul ci nun dara lu dul daf ñoo jàngal lim nuy jàngal nag infok ñu koy dégg ci benn falsafa boo xam ne day niroog suñ waaqe suñ logique jigéen rek ji gën a saggan su wooree ba heure bi tombeeg muy bés bu tàng da ngay gis rek muy may doom ji ndox su jooyee mu ne ko may ko ndox mu naan effectivement ndax yëg na daa defee ne moom li ci xolam bi tàngoor woowu moo nekk ci xale bi te bu dul woon bisub koor mën na ko bàyyi muy jooy mu jiñ ko leneen waaye ginnaaw nag mos na koor muy metti su jooyee mu ne ko may mu naan loolu dañoo bëgg nag yeetam nag bala la fàqir bi rombee nga xam ne kay di dem lim la wax dëgg la kër ga dara néew fa daa metti a diis bokk yi liñ amakus néew danaa ci indi benn lépp bu waaju am xam-xam ma a wax dafa amoon ay milliards xëy di ko joxe par million nay bi gis ko ne ko waaw yow sa alal ji ngay sax-saxee di ko joxe rek nag mu ne ko dama koo bëgg a def trouble sec dama ko bëgg yónnee ci banque mu ne ko ban banque mu ne ko banque boobee ca àllaaxira tëñ tëñ tijji ko ca àjjana moom laa gis ne su ma ko fa yónnee ñu dencal ma ko fa su ma demee àjjana yiñ ma doon tere ci àdduna yépp de sunu kenn dootuma ko tere ku mu ci noonu bu bareelee bay lekk ndawal gu duuf lee mu dem hôpital ñu ne ko bàyyi lu duuf bu dee nag lekk lu sedd ñu ne ko danga nga am rhumatisme bàyyi lu sedd su dee bari lu muy naan suukar ñu ne ko bàyyil suukar ila axiri yi nag ak yeneen yi nga xam ne mën ngeen koo àggalee waa ji nag ne ginnaaw foofa kenn du la fa teree dara foofu lañ mën a lekkee ay milliards kooku li mu wax bu fekkee dégg ngeen ku ku mus la li nga yore fii di ko kab-kabee te yow mënoo cee lekk 5000 bis boo tegalee lekk 5000 juróomi fan danga dem hôpital ñu tere la te desu la ne sax wàññil dañ naan la ko li gën a métti ci àdduna mooy lool soo dee lekk suukar dañuy xam ñu la baal suukar complètement ngay lekk lu duuf ñu la baal nga ndawal gu gu niin complètement kenn du la ci yërëm buñ la ne woon sax dee dee ci lekk too sàngam muy jàmm waa ji nag ne ginnaaw alalam ji moom mënu koo lekk fii lu mu ci laal ñu tere ko ko na yónnee ci dëkk ba nga xam ne lu mu fa lekk mu lew ko kon koor bokk na ci li muy jàngal jaam bi nga yëg xiif bi ba yëg ne sa moroom daa xiif moo tax yonent bi salaa sallam waxoon xadisam ba gi ñetti yoon ne gëmut yàlla gëmut yàlla gëmut yàlla ñu ne ko kan moo gëmul yàlla mu ne ko fanaane ab reggaay te sa mbokkum jullit fanaane xiif te nga yëg ko ok te nga yëg ko bu fekkee daa taamu xiif bi nag lànk bañ la ko wax yëgoo ko amoo ci problème mais saa yu la nee damaa xiif rek yow takk na la buum ci sa baat moo tax mu ne laa yuminu laa yuminu laa ba ci ñetti yoon ñu ne ko kan moo gëmut mu ne ko fanaane ab reggaay te sa moroom fanaane xiif te nga yëg ko kon mbokk yi koor lim ñuy bëgg a jàngal ginnaaw bu ñu xamee farata yi ak sunna ya loolu lañ mu at-tadaamul ijtimaa'i mooy lënkaloo ci defar sunu adduna benn boroom xam-xam daf ne nit ki bu wooree ba ngoon te ak dépense am wàññikuwut lu dafa yokk wóorut mooy lan loolu istawa mahal bahima jooju Sëñ Tuubaa di wax ci téereem bi istawa mahal bahima lu compliqué la tuuti ndekete yoote waa ji nga xam ne daa yendoo xiif mar ba ngoon yàlla tombeel ko ci lu mën a lekk mu lekk ci lu ëpp kooku atteb ab bàyyi ma la aw nag dong ngay nag woo xam ne boo ko yeewee ci fee gisul lu mu lekk danaan cell waaye saa yu gisee lu muy lekk da koy fayu mbooleem li mu xiifoon lépp da koy lekk ba mu ëpp moo tax suñ nag ki nga xam ne moom ak kooram lekk lu bari la cay def aka naan lu bari kooku dañ koy jàppe ne ab bàyyi ma la ndax aw fasakum xarakum leneen soo ko beree yeew ko fenn gisul lu mu lekk du la ko laaj waaye bis bu gisee lu mu lekk day la mu lekk lam xiifoon lépp kon koor war nañoo indil ak wér tegale ay lekk baaxul ak nañ koy tegalee sax nag da ciy gën a tee bon ndax am na yenn lekk yoo xam ne liquide yi mu yor ak yeneen liquide yi dafay contenté parfois bu ko nit ki yoree lekkee li gën ci moom sax mooy mu wocc ko waaye bu fekkee wëcc wu ko ba mu nekk ci biiram da koy indi ay feebar moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne suumu woor leen kon ngeen wér ndax lan mbaq yi léeg-léeg day fay bloqué su bolokee nag koor bokk na ci li koy nettoyé ba mu set boo ko nettoyé ci bëccëg bi ba mu set bu guddee boo ciy dugalaat dara na ko limité ba ba dootu jarati nettoyé loolu lay tekki waaye bu fekkee da koo ko nettoyé ci bëccëg bi ba mu set bu jant bi soo nga tegale yem doon bañaa di yëpp ba mu boloke waat nee na kon yow doo wér kon koor balaa mën a jur wér kii woor day lekk ci anam goo xam ne da koy wàññi waaye dootu ko yokk moo tax benn borom xam-xam ne képp koo xam ne bu koor jotee sa dépasse du manqué lam doonoon amoo koor ñun nag maa kulil asaf déedéet ñun koor gi bu dikkee suñu dépense day ëpp sax far ku daan dépensé 5000 10 000 ngay dépensé ku daan dépensé 10 000 15 000 ngay dépensé parce que yi ñuy dajale ci boppam bëgg koo lekk moo bari te sexa bi ñu bëgg na muy sant bi bala ñu mën a am wér-gu-yaram il faut que ñun limité li ñuy lekk ba bàyyi ci roox fu mu mën a jaar ba noyyi lekk itam ñu koy xool yi war a tegaloo tegaloo yi wut tegaloo bañ tegaloo benn xikma bu gàtt Cheikh Saliou mosoon ko wax radiyallahu anhu nee na boo wooratee ba ngoon boo naanee lu tàng bala nga caa teg lu sedd na nga toog ba làmb kaas ba nga naari woon lu tàng mu sedd guy yu nga door a naan lu sedd te loolu docteur moo ko jàngalee boo jëloon benn kaas tey def ci glace en même temps nga génnee ko gaaw daal ci sottiwaat loo xam ne dafa bax kaas bi du ko dékku daan tëf loolu moo waral ñu bari ba ñu woyare ba ngoon dañuy miir ñim gën a jig nag ñooy miir waaye ñim yi moom parfois dañuy tiisu tiisu may dañuy wàccu ñi ñim gën a gën a gën a tee jigéen nag mooy ñoom dañu di yóbbu hôpital ndax lan ñaari madde yi ngay bëgg a tegale matières yi buñ contrantee rek benn bi dafay fëlërate pour mu mën a génn kon bokk na ci lim daan digle boo dogee bala ngaa naan lu sedd ginnaaw boo naanee lu tàng na nga xaar ba lamb kaas ba nga doon naane lu tàng fekk mu sedd guy am na ñoo xam ne nag ñoom dañuy dem nag directement doge ji ca la sedd ci côté sixa wa wallu gu yaram nit ki bu yendoo koor ba ngoon mboolem sodiitam yi dafay dee su naanee lu tàng si lii dafay dekkiwaat dafay dafay dafay dafay am benn gaz wala benn poudre wala benn euh, saxar bu ci gilli bu ci gillee nag diggante boobu nga naanee lu sedd da ko war a bàyyi nag moom ba sidit gi dal lu gudd la nag temps bi du ko matee waaye boo demoon ci xëdër xol nii la mel nii may def nii nii la xol mel xol bi melee nii benn tiwo moo ci jokk diggante xol bi ak tiwo bi deret ju ñuul kukk moo ciy bax deret jooju di bax nag mooy waral salaire bi mooy dugg ci sa fii ba bu docteur defee nii nga gis mu mu jóg salaire boobu nag boo naanee lu tàng lay jóg ñu bëgg nga bàyyi ba mu sedd nga door a naan lu sedd côté sexa loolu danañ ci ñëwaat ci biir koor gi bu soob yàlla ak leçon yu yaatoo yaatoo yaatoo kon bokk na ci nit ki ndekete bu wooree dafa war a sàmm wér-gi-yaramam waaye dem ca biir koor ga ñu far la ci tere te yaa ko sa bopp loolu dara jëru ko ku ko man na ko def ku ko mënul na ko bàyyi foofu lu am solo la ñu bari naan man daal ginnaaw doon naa woor ba àgg si fii daal gisuma leen lu may teree woor naa woor rek ba ba may faatu yàlla santaaniwul loolu yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla nee na maa la gën a xam sa bopp te dama laa bëgg a noppal bul sonal sa bopp yàlla ne man mi la tegoon ndigalal koor loola su ma demee ba teggi ndigalal koor loola ne la bàyyil da war a bàyyi bokk na ci ab murit defal mu def mais ba ca des mooy nga bàyyi mu bàyyi waaye boo xasee ba jàpp ne dootuma bàyyi nag boo ca faatoo yaa rey sa bopp koor gi fi la ñuy doxee mar d'Italie paralysé ñenn ñi fa la ñuy doxee feebar feebar yi dul wérati li ko waral mooy dañoo mënta koor ba noppi defe ne koor ba na koy war def ba ba ngay faatu déedéet koor dafa sart ci dafa cee bokk ak man lépp lu ak man àgg nag saa yu ñu yëkkatee man ga rek yow loola dalay daal di wàcc asalaamaaleykum wa rahmatullah daa mi ne kon nodd gi mi ngi jot ñu ngi jégalu ñëpp tey baal àq ñëpp